scandalisé woon dépôt dem dikk ci Kër Massar tama ëpp leen bu mu guddi yi ñu toll l'observateur di ñu xamal ci xëtamu njëkk ne ci manifester yamoon keroog ci Kër Massar ñi demoon taali watay Dakar dem dikk ci seen dépôt ba ñooñee alkaati yi ñoo ngi leen di wër wër gu mit jamono ji nee nañu am na lu mu néew néew lu mat fukki militant yu parti Pastef yi ñu tegagum loxo ci yëf ndax jàpp ne seen loxo génnul ci taal gi ñu tàlloon Kër Massar fépp la takk deri fat am na benn waay boo xam ne l'observateur ne nañu bi ko sandarma yi di jàpp këram la ko fekk muy ngénte doomam libération ne ko waajooje faali saane la tudd ca këram la ko waa GIGN fekk muy ngénte doomam ñu jël ko yóbbu moom ak ñeneen ñu ñëwoon ca ngénte la ñu bari ci ñoom nag mbiri vérification l'observateur ne nañu moo tax sandarma yi embarqué leen COUD di centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru Les ko ne suba police bu point E de leen a convoqué woon ñu bañ duñu wuy ji ba tax ñu saisir waa division investigation criminelle yéenekaay bi mi ngi ñuy fàttali ne ca manifesté yooye lu bari yàqu woon na ca centre des œuvres universitaires bu Dakar bokk na ci restaurant argentin ba fa nekk ak restaurant self manifestation yi amoon ca Ngor sursoi nee nañu kër ga ñu fa taaloon te ñuy wax naan kër ga journaliste bii di Cheikh Yérim Seck moo ko moom kër ga Cheikh Yérim Seck moomatu ko woon ndax da koo tayle jafe avec sursoir ne nañu jeunes yi ngor yi ko taal ci seen manifester ga ndax jàppoon ne Cheikh Yérim Seck moo ko moom dañoo juum ndax Cheikh Yérim Seck moomatu ko moo ko moomoom moomu ko sursoir ne nañu bi ñu mujjee jokkoo ak moom moom Cheikh Yérim Seck ci téléphone def na ay fan li mu leen wax mooy kër gi sama kër la maa ko moom te bu ngeen bëggee mën naa leen woon kayit yi kayitu kër docteur di autopsie bi ñu doon def ci xale bi faatoon ci manifestation yewoon ca kër Massar ñu naan ko Pape Amadou Keita Vox Populi nee nañu ci xëtamu njëkk li autopsie wax mooy xale bi arme blanche rayu ko balu fital moo ko rey certificat de mort bi l'hôpital joxe Vox Populi nee nañu na li ministre intérieur waxoon ne moo faat xale bi journal Tribune bindee ko noonee ci xëtamu njëkk certificat genre de mort bu xale bii di Pape Amadou Keita la ca nekk ñu ne moo ko faat weddi li ministre intérieur waxoon l'observateur nañu autopsie bi nee na amadu Amadou Keita ab projectile lañu ko dóor ci xëtaru càmmoñ bi Ousmane Sonko mu yore téléphone portable am ci loxo ndeyjooram dóor ab simisam teg ci kabam photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk l'observateur li mu fi defoon fan yi mu di xëy xëy ne mes kenn gisu ko fenn kenn dégg ko fenn ba mu yàgg mu jekk-jekk ne bu xeet wàcc ci mbedd si gicoor yi di wane boppam ak ay yaata yumbe loolee l'observateur xëy di jàngat ñu jànge ci enquête dina kay jàngat beneen bu mu def ci Ousmane Sonko ak désobéissance civile gi mu woote yéen bi gis na ci ne yëf yi paaka ñaari bor la ci moom maanaam mën na ko jariñ waaye mën na ko lor Basirou Gueye dib chercheur maanaam ab gëstukat mi ngi leeral ci enquête dina kay lan mooy désobéissance civile ki koy def nu mu koy defee ak su ko defee lan moo ko ci mën a fekk ñu fekk ci xët mu njëkk réew mi quotidien Ousmane Sonko ak Adji Sarr bi dañuy yeggee condition yu Ousmane Sonko teg mooy mën a mu dem janoo ji ak Adji Sarr talaata ji di ñëw ci tribunal bokk na ci ñu bàyyi ko mu am liberté di dem ak dikk fu ko neex ak nu mu ko neexee beneen bi mooy ñu def ko ab procès bu dul ànd ak benn parparlo jël dossier bi dénk ko ay magistrat yu farul fenn yu faralul kenn source waa mel ne ku naan ñu gaañaa ngi ci loolu ndax juge bi waroon a àtte Adji Sarr ak Ousmane Sonko di Hippolyte Ndeye jëlee nañu dossier bi ci moom dootu ko àtte ndax moom Hippolyte Ndeye sëram di Victorine Ndeye ministre la ci gouvernement bu Sénégal sàmm sunu réew lii quotidien nee nañu mu ngay bu ñu taxawal ci seen biir tuddee ko FEM mu Sénégal ñu xooli stade yéene kaay mi xëy di ñu wax ne finalu CAN u bay am ci Algérie tey jii la war a dox ci diggante Sénégal ak Maroc ñoom gaynde yu ndaw yi stade yéene mi ngi leen di ñaan ñu wuti beneen juróomeelu coupe d'Afrique ci football bi record yéene kaay nañu du yomb ndax final CAN U17 ci diggante Sénégal ak Maroc mbiri ñaari doomi gaynde lay doon. ci yéene kaay yi. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi yéen itam jërë ngeen jëf ci